waaye le fait que ñu single ko maa ngi dégg sax benn bis fan yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndayam xamuñu baayam. Euh, wala su ko dégg jugement ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam. kan moo xam ndeyam ak bàyyam ñun suñu yoon daane ci ndey bàyyam ak ak ak <laughs> bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que maa dégg benn nit bu may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak bàyyi ma ne xanaa yow la gën ndey ak bàyyi <laughs> man sama ndey ak sama bàyyi ñoo gën ñoo gën ndey ak bàyyi yonent bi ah. parce que man sama ndey ak sama bàyyi ci l'islam lañ judd ndeyam ak bàyyam judd wuñ déewuñ ci l'islam hmm. c'est que Sénégal ñoo ñoo maanaam ñu c'est grave comment un imam peut traiter de ce point nit nit hmm. maanaam xale bu jigéen bu ñu xamul ndeyam ak bàyyam hmm. c'est que Sénégal moom dañoo yàakaar ni jigéen moom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 Eh, di am mettit ak naqar boo xam ne fu ko waay natt rek romb na ko ci kii nga xam ne mooy Moustapha Jaxate damay wax ne tey dinaa utiliser baat yoo xam ne kenn mosut koo dégg ci samay raddu te li waral ma koy utiliser mooy ñàkkee gim ñàkkee teggin ci kaw yonent bi alayhi salaatu moo tax man su ma doon tontu Moustapha Jaxate dama koy wax ne ko yow doomu xaraam nga sa yaay doomu xaraam la sa baay doomu xaraam la nekk doomu xaraam rawut ngay oote na ab julit nga ba noppi ngay taxaw di wax ne bàyyi yenentu bi yaay yenentu bi kenn xamut leen di leen suufeel di wanne sa baay ak sa yaay ñoo gën yenentu ñoo gën bàyyi yenentu bi ñoo gën yaay yenentu bi loolu ab doomu xaraam dong moo koy wax te itam lii képp koo xam ne ab julit nga nga dégg ko te naqadiwut la billaahi wallaahi talaay sa julit wérut ndax yenentu bi alayhi salaatu wasalaam képp ku xas yenentu bi alayhi salaatu na yàlla ku xas yàlla nag yaakaar naa ne kooku desee la tudd dara jullit ñi jullit ñépp a war a mànkoo ndax lii mu wax tey maa ngi gën ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mim xas ne bu ko waxoon tey ci benn sëriñ ci sëriñi réew mi aduna bi takk bu ko waxoon tey xam nga dot doomu xaraam rawut dot doomi xaram rawut yaa ngi ci réew mi ay sëriñ a ngi ci réew mi ñemewoo cee tudd waajuru kenn ndax boo ko tuddee ñu fekk la fa def la lu bon nga toog ci kaw tele di layal benn jigéen lii moo tax man mënoon mbiri usmaan Sonko yi man duma ci wax ndax li tax mooy da nga ci dem ba dugg ci ci loo xam ne mën na laa jural ëllëg tooxi doona ndax mbir moo xam ne xew na yaakaar naa ne képp koo xam ne ab julit nga ngay bëggee yonent tibi alayhi salaatu wasalaam yow waroo taxaw di wax ma dégg mu ne Sénégal liñ xam ci jigéen mooy mooy mooy tëddee rek lañ xam ak liggéey ko kanaa loolu sa bàyyee ko xam kanaa sa bàyyi moo xam ci jigéen ak tëddee rek kanaa sa yaay lañu daan jël di tëddee rek waaye Sénégal kay mag ñu baax ñi fi nekk seen yaay yi doon jigéen ñu baax seeni waajur yi doon yu baax soo tax dee di wax di wax ne Sénégal liñ xam ci jigéen mooy tëddee ko rek looloo sax sax nga ne ñuy lay naan maanaam nit ki dafa war topp topp jëkkëram yow yaay doomi xaraam Moustapha Diakhaté yow yaay doomi xaraam piir yaay doomi xaraam te itam li réew mi yëpp a war a dal ci sa kaw wan la ne la doomi xaraam nga sa baay doomi xaraam la sa yaay doomi xaraam la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngay takkalanteeg sa bopp yow yaay kan yow yaay kan waxu ab jigéen boo xam ne yëkkati ab boo xam wax ko yow même bu fekkee da ngaa kontoor tey tey tey tey tey tey tey ki ki ki ki ki kiñ tuumaal wax ji mais yemal ci moom bu fekkee da ngaa contre borom wax ji yemal ci moom mais lan mooy lan moo tax ngay taxaw di tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci plateau bu ñu la dalal yow ak ki la dalal ci tele bi ak télé boobu yëpp dañoo yabaate waaw dañoo yabaate. parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngeen jël di ko foyee ngeen war a bàyyi yeneen bi salaatu wasalaam du seen morom du seen moromi bàyyi gis nga diine ji yow bu fekk yow sa jullit wérut xaw ma sa bàyyi jullit la am du wut jullit waaye yow moom doo jullit parce que ab jullit bu xeeb yonent bi alayhi salaatu wasalaam du wut jullit képp ku ŋàññi yonent bi salaatu wasalaam doo jullit yeneen bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci hadis ne kenn ci yéen du am ngën yàlla ndara mu maa ko gënal boppam ndara bu man yenentu maa ko gënal boppam maa ko gënal alalam maa ko gënal njabootam Seydina Omar ibnu Xataab mi nga xam ne moo la gën gën sa baay gën sa ndey Seydina Omar dem indi alalam yëpp joxe ñëw na ko yenentu nag sama bopp moom dëgg-dëgg gënaloo ma ko yenentu bi na ko xattal aana yaa Omar ba léegi yow Omar àggugoo ci yegguwaay bi Seydina Omar delluwaat tuuti dikkaat na ko yenentu yaa ma gënal sama alal yaa ma gënal sama doom yaa ma gënal sama ndey sama baay yaa ma gënal sama bopp yenentu bi ne ko al aana yaa Omar yow Moussa Jaxate doomi haram joo xam ne kenn xamut la ngay taxaw naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa gën baayam di ko waxee fii ci réewum Sénégal ñëpp taxaw di la seetaan lii nag moo jar mars lii moo jar ñëw ñëw ñëw yow ray la lii moo jar ñëw taj sa kër lii moo ko jar parce que lii nga wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko méngaleeg sa ndey sa baay yow ku xam sa ndey yow nañ laajte ne ku xam ndey Moustapha Diakhaté na ko wax ci réew mi kenn du kenn xamul sa ndey nañ laajte ku xam baay Moustapha Diakhaté na ko wax kenn xamul sa baay kenn xamul sa baay baay yonent bi boo ko laajtee ñëpp ko xam kuy ab jullit xam nga ne Abdullahi mooy baay yonent bi alayhi salaatu wasalaam kuy ab jullit xam nga ne Aminata mooy yaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow doomu haram ji ku xam sa baay ku xam sa baay laa wax yow laajteel ci télé bi na kan mooy sama baay ndax dana am koo xam laajteel ci télé bi kan mooy sa ndey ndax dana am koo xam ba nga taxaw di wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yow sa baay moo gën baayam sa yaay moo gën yaayam xam nga ne loolu ay fen yu tooy xat la yonent borom borom borom xamsiya waxoon lam yesal fi damaa'iril kawni tuxtaaru lakka ummaatun wa abaa'u yàlla mosta dëñ di tànnal yonent bi ndey yu baax ak baay yu baax ba mu yegg ci Abdullahi bi mu yegsee ci Abdullahi mu nekk ab waxambaane ci ñaar fukki at wala fukki at ak juróom-ñett di dox ci mbedd yi jigéen ñi naan ko kaay nga sëy man ma jox la téeméeri gëlëm yañ la jote woon moo doon wax ne amal araamu fal mawtu duunuhu والعل لا عل فاستبينه يعمل الكرام وعرضه ودينه فكيف بأمر الذي تبتقينه dégg nga loola bu doon sa baay du ko wax bu doon sa baay du ko wax laa wax Moustapha Diakhaté yonent bi alayhi salaatu wa salaam Abdoulaye baayam moo waxoon ne amal haraamu def lu haraam fal mawtu duunuhoo deema ko gënal wal illu laa illu fastabiinuhoo li dagan feeg daganut man du ma def loolu mu teg ci na sax ne yaa amil kiraamu erduhu wa diinahu maanaam nit koo xam ne dafa am tedd nga nit ku baax dafay sàmm deram sàmm diinaam kon soo taxawee yow di wax ne bàyyi yonent tubi sa bàyyee ko gën wala nga taxaw ne yaay yonent tubi sa bàyyee ko gën dañ lay wax ne la ful camp lañ lay wax ful camp lañ lay wax sa baay du dara sa yaay du dara te itam bu fekkee ne am njàmbaar te nga xam yow boo koy waxee am na kilifa yu fi nekk tuddal se tuddal na yow say wa say waajur ñoo gën say waajur boo leen waxee tey ñu def la ngay niw Sénégal nag diina moo fi amatul benn valeur parce que nit ñi fonkatuñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam desal nañ gannaaw alquran desal nañ gannaaw nit ñu baax ñi foo foo leen fekk ñu ngay xeex di toj di xuloo ko yàq ay ay ay ay marché ki def ay nangam kenn ci ñoom lañ tooñ ci mbiri àdduna waaye mbiri yàlla kenn du wax waaye yow bu fekkoon ne tey yaa ngi woon ci réew mu ñuy attee tey dañ lay rendi yow dañ lay rendi ndax ku la gën a do doomi xaraam xamul ci réew mi maa la ko wax nag man Cheikh Mahamadul Habib Ndiaye alkaymoor yi maa la wax loolu yow Moustapha Jaxate doomi xaraam piir nga do doomi xaraam rawut kuy oote boppam ne julit la ñu tuddee la Moustapha yow doo Moustapha yow doo Moustapha yow doo Moustapha yow mu safal lañ la war a tuddee yow ku suufe nga parce que suufe rawut ponkal mu yem ni yow di mag yor sa njaboot sa njaboot yëpp la waroon a mere sa njaboot yëpp la waroon a xalak waaw sa njaboot dañ la waroon a bàyyi ber la génne la bu fekkee ay julit lañ comme yow doomi xaraam yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngay ngay tëkkaleeg sa baay sa ndey kan moo xam sa baay ku xam sa yaay ku xam sa baay ku xam sa yaay yal na yàlla xalak la ci barke yonent bi alayhi salaatu boo tuubut yal na la yàlla xalak soo tuubee nag yal na la yàlla jégal ndax wa man taaba taaba laa alayhi waaye boo tuubut yal na la yàlla xalak ndax taxaw ci digg télé ñëpp di seetaan ngay suufeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam rawut ngay suufeel baayam ak yaayam te loolu lii sax état daf cee waroon a wax